li mu war a def mooy woote ñii nga xam ne ñoom ñoo bokkal làng gi ñu magi ànd ak moom li leen war mooy ñu wuy ji ko bu nu ñëwee ñu waxtaan parce que ku la woo rek joo la jox la maa mu wax la kon bu wootee nit ñi war nañ ñëw wuy ji ko ñu waxtaan te bu buñ fa jógee ñi opposé wu opposé wu waaye ñiy jiite jiite pour loolu mën a am nag il faut que Euh, Sénégal bu ñu falatee nit quel que soit niveau de responsabilité ña mu doon jonganteel xam ne kii kat dama doon xëccoo ak moom waaye yàlla may na ko ndam waaye mënuloo président de la république ñu fal ko yow loo mënoon seq ak moom démb c'est le président de la république bu demee Tivaouane se le président de la république bu demee Ndiassane c'est le président bu demee Touba c'est le président yàlla mooy def depuis Sénégal ba mu nekkee indépendance ba léegi ñeenti président la ñu parce que yàlla tudd na ko. yàlla moo xam ëllëg kan mooy remplacer Macky Sall kon loo mënoon seq ak moom bu ñu ko falee danga ko war a jox gëddaam l'opposition a respecter la légitimité le choix des Sénégalais c'est que le président de la République c'est Macky mais le président Macky Sall également doit savoir que les opposants wa président Macky Sall tamit da war a xam ne opposants yi du ñu ay noon am na ñu sañ-sañ ànd ak moom comme am nañ sañ-sañ bañ a ànd ak moom parce que bu continuer woon ànd ak Ablaye Wade kon du nekk président pendant benn moment dafa dem opposé wu yàlla def ko président donc mu respecté ñooñu te décision majeure yi ñu koy waxtaane parce que am na lu bari loo xam ne bu ci waxtaan doon am pas ñu toog ba problème am ñu ne noo dañuy woote le 28 mai mais dafa war a nekk un dialogue permanent bu fête de l'indépendance amee nga gis opposition bi toog comme am nañu un chef de l'opposition mën na leen organiser benn référendum nag pour ñu tànn le chef de l'opposition waaw cumul bi cumul bi moom yaakaar naa euh, ñun ñoo ko war a bañal suñu bopp parce que bëdd yenn waaye xam na lu bopp attan cumul mooy dajale boo dajalee lu diis doo ci mën a yóbbu lenn donc da ngay tànn la la ca gënal nga ne liikat kat moo ma gënal ma doxal loolu kon loolu bu amee véritablement coow du am mais cumul bi moom wax dëgg yàlla euh, euh, du loo xam ne dina avancer parce que boo dajalee lu bari rek am na ñoo xam ne waroo waroon am benn cër war ko mën a doxal yow nga boof ci ñaar yi te doo ci doxal benn kon dama yaakaar ne dialogue bii nga xam ne moom la ñuy tàmbali ci fan yii di néew question yooyu war nañ ko mën a waxtaanee. le processus électoral la question euh, de l'acte trois de la décentralisation maanaam calendrier électoral bi lépp dañ ko war a waxtaane teewul ka bëgg a wu moom kenn mënu ko tere opposé wu parce que nag on n'est pas obligé tout le monde ñu ànd ak président Macky Sall parce que président Macky Sall am nay jamono bu opposé wul woon kon tey du nekk président de la République kon keneen am na sañ-sañ tamit ne man ànduma ak président Macky Sall te kenn mënu ko reprocher waaye nit ki boo respecté ay devoir am maanaam yelleefam respecté tamit ay obligation am véritablement amul dara loo xam ne war leen mën a tàqale.